waaw xam nga suuf soo xamante ni moom dañ ko dajale rek teg euh, utiliser wuñ ko du yomb a garder saa moom dañ ko war a comprendre d'abord maintenant ñi fi ñëw tamit installé xam nañ ñu moomuñ suuf si te xam nañ ñi dañuy dem moo tax bala ñuy def quoi que ce soit dañ leen di lancer appel ñu dem ci njekk ak teraanga parce que ay décision président de la république la yu mu jël euh, jël suuf si euh, jël annulé boo yi nga xamante ni amoon na fi yëpp. jë suuf si ñu jox ko Prodac donc kenn amul euh, vraiment daraja wala gëdd ñëw installé fii fii ak ko mënti doon. kon ñu waxante ci njëkk ak teranga d'abord parce que Sénégal nañu nek mais nak ñun duñu empêcher ñun en tant que ministère de la jeunesse ak service yi nga xamanteni ñoy service état yi ñu appliquer à la lettre li nga xamanteni moy décision président de la république parce que amna lo xamni mënul jall fit warul may nit vraiment mu ñëw président de la république jël ay décision yow nga taxaw ne le fat sa ay nopp def lu la neex kon ñi ngi leen di ñaan ñom ñu dem ci njëkk ak teranga bala ñuy bala ñuy avancer ci dara